bon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh ma ngi len nuyu bu baax di len ziar di len jaajeufal di len may ben video bu gatt Amadou Ba ginaaw bi nga xamni genn na wax fi njombem gu réy gi ci plateau TFM gis nañ ko mu ñëwaat neena da fay reccu ñu gis ni euh, primo di tax man waxam bi gëmuma moy boy joxe exemple ci politique man nga ne Benno dañoo ngoy ci Amadou Ba ñeen ñu ngoy ci keneen ñun ñu ngoy ci Ousmane Sonko mais li yóbbu xelam directement mu bàyyi fi ñooñ politique yi nga xam ne ñoom ñoo ko séq dem directement ci ay kilifa diine mooy que c'est dans sa tête bu fekkoon ne Amadou Ba kese moo ko wax Amadou Ba passé bu fekkoon non Maître Tall laa bëgg wax bu fekkoon Maître Tall moom kese moo ko wax ñu mën a wax ni c'est la première fois wax bi dafa ñëw ñëwaat ñëwaat ñëwaataat bu ngeen seetloo. Euh, booy bi dem Mali ngañ Demba Touré moo fi njëkk ñëw taxaw wax ni dañoo bëgg ñëw génne nit ñi ci jaamu xërëm jaamu nit ñi ñoom yóbbu leen ci jaamu yàlla moom kees moom kese boobu wax moom aw am ñëw na fi Ousmane ko ci boppam ñëw taxaw wax fi ci kilifa diine yi lu ko neex waaw ku ma ñaan duma la may ak nangam sangam ak et dem ba actuellement nii dañoo dem ba désacraliser li nga xamante ni mooy institution religieuse yi nga xam ne Sénégal moom la am di ko ndamoo mais bi bu demee ba ne loolu sax du diine mooy gëm-gëm la ci moom jarul nga ñuy wax ni tiijaan nga jël nga wér di on a on a pas besoin de savoir ça parce que tout simplement ñi fi gën a bon ñi fi gën a yées di def taqiya dañuy am wérd les frères musulmans raar na nga gis ci koo xam ne bokkul ci tarixa raar na nga gis koo xamante ni tey jii nii bokkul ci benn benn benn religion ça dañuy bokk ci religion bokk ci ay bokk ci ay confréries mais fekk la ñuy daas ak la ñuy jëm bokk maintenant man ma gis ni euh, ndaw yi Sénégal ñoom lay waxal ndaw yi nga xam ne gëm nañu l'islam confrérique gëm nañ ne ay tiijaan lañ ñii gëm ne ay murit lañ ñii gëm ne ay xaadir lañ ñii gëm ne ay ñaseen lañu ñii gëm ne ay nangam lañu gëm-gëm bi ngeen am waxoon nañ leen ni ñoom daañ dem ba gëm-gëm googu takk nañ njëll njëllu usmaan Sonko dem nañ bay jàpp nit gis naa nit Ousmane Sonko taxaw mu jël jël pancarte su jóot billaahi wallaahi donc bu ngeen bu ñu demee tey ba ba Maître Tall di ko tëkkale ak sëñ Babacar di ko tëkkale ak Cheikh Ibrahima Fall moo yebaate am na. parce que mënul nga yem ci Macky Sall yem ci Amadou Ba bu bu Bokk Yaakaar yem ci Thierno Alassane Sall ils sont tellement nombreux vous êtes 200 candidats le choix devait la comparaison nekkul diggante Ousmane Sonko ak ñii. la comparaison devait être entre Ousmane Sonko ak ñi nga xam ñoom ñooy defandoo politique mais lan moo tax sa xel directement jóg rek dem directement ci kilifa yoo xamante ni sa moromu baay duñ donc yooyu reewande yooyu ngeen def nii dafa yomb après nga ñëw defaate benn vidéo 5 minutes naan ay noonu nangam sangam laak nangam sangam loolu wax moom mënu koo dindi nekkal ku la neex mais tu as déjà dit et c'est déjà passé on a pris acte benn bi ñaar bi mooy ngeen gis ni ndaw yi nga xam tamit yéen a ngi dem di dee ngir waa ah, ngeen lim yàq Papito Kara mi nga xam ne je suis votre adversaire man mi nga xamante ni saa yi ma yeewoo luy daanal luy daanal Pastef ci laay xëy di ci gont ak liy daanal seen njiit bu ñàkk fayda boobu Ousmane Sonko borom raay mbelle mais wax ji wax na coon wax mu jëm ci Papito karaa man daf sama fait très mal parce que dem ba nikki ki faatu xalaatoo ne Papito karaa am na soxna am na ay doom nga koy ñaanal yàlla yàlla na ko jën yi lekk na ko requin yi lekk yow yow Papito karaa moo la gën xamul tax mu gën la Papito Kara buñ xeex xeex xeex dem na kaso il a dem na kaso mais yow Akhenaton amoo fi amoo fi amoo maanaam yow amoo amoo fi dara Sénégal c'est-à-dire tu es là en France di jël booy ñuy dem di xeex ji mais yow bu fekke deugentane nday bu doo karaa li def dang ko xet xeeb mais Akhenaton rien dara amul dara lu téré yow yow ñom ñoom Mollah Morgun ak ñom ñom ñoom kii à moins ragal kasso parce que ñak ñew Sénégal Akhenaton Guigui mo gën ak ñom 15 fof da ngeen ragal kasso motax boy bi dem na kasso ba ñew déna li war doomu adam bu nek moy nga ñaanal ko ñeegal ñaanal ko yalla subhanahu wa taala yërëm ko tek loxo ci njaboot bi fi bayyi mais taxaw di wax ci nit ko xamni fatuna lu ñaaw la benen bi moy senegal fiñu ñu jëm te buñ defut nak mu ëpp ñu doolé moy que génn nit sulli ko taal ko ba mu xëm sans soucier taxaw tim ko nit ki di tak manam nit ki bi di tak ngeen tim ko tak mu tak ba jeex tak ngeen di waxtan ñu dem ba man affaire bi ku mu yem man nag dang may jaaxal xamul tax bis lañu tal seetaan nit ñaari nit di lak ba jeex tak ñu ne complot la sans souci nous hein, ñu ne complot nous kon ñooñu bu ñu ñëwee tey tey dem ba ndaw yi dem ba euh, ñu sax sañ-sañ bi am ci doomi Sénégal maanaam sañ-sañu parce que ku nit muy dund taal ku dé du la dañ taal ay nit yu dund kon du mais le fait sociologique le fait psychologique qu'il va, falloir euh, nous nous au-delà de cela Sénégal depuis un bon euh, depuis un bon temps nous avons compréhension mi dem par les verrous sont en train d'être sautés benn par benn Ñi ngi verrou verrou bi cohésion nationale cohésion nationale nous moy li ma leen waxoon fu ay mag ak rakk di di xulloowee fu papa ak doom di xulloowee ndax appartenance politique ñu dem fa bay taal ay nit di am nit kuy dund mais wax dëgg yàlla fu ñu taalee néew fu ñu taal nit kuy dund ba mu dee fu ñu taalee néew bu dee ba pare wax dëgg yàlla amul problème kon nañu il faut se ressaisir jeunesse de mon pays gis nga ñii di wax xale yi dem ci géej gi da ngeen natt da ngeen natt 40 millions jox ko soldaar deuxième classe yi Naouma actuellement nee na candidat la bëgg doon ngeen natt alal gu bëri jox Guy Marius Sagna mu jënd oto nee na candidat la bëgg doon ngeen natt alal jox Ndeye Khady Ndiaye mu ubbi boutique entreprendre Clédor seen mi toogoon di ñu bëgg rey wax bu bëri mi ngi ci njaayum jën geeg si pax geeg yoxos diggante Ziguinchor Mbour ak dakaar moom mi ngi entreprendre yéen nag ñi doon cotiser di jënd ay bracelet di ko takk 400 millions yooyu amu leen si projet bu ñu leen xalaatal maanaam ñi leen doon wax ni dara dëkk doxul Clédor Sène mi doon wax dëkk bi doxul la politique de pêche dafa dafa échoué contrat de pêche yi baaxul que Clédor Sène mi ngi entreprendre jëm ci wàllu jaay si pax jaay ay yoxosok ay tuufaak yu demee noonu les fruits de mer diggante shor Mbour ak déggatu leen ko ci dara Ndeye Khady Ndiaye da ngeen ko nattal xaalis dafa entreprendre ubbi boutique am yor si njabootam mais yéen lan moo leen tere entreprendre xaalis boobu ngeen jël di ko dajale lan moo leen tere entreprendre lan lan lañ leen yéene yéen seen seen seen wéyjur yi yàlla yéen daal dañ leen yéene yéen seen wéyjur yi yéen ngeen di cotiser xaalis di jënd ay butéel di jënd essence di jënd morso di taal muy tàkk ñi leen di jàpp di leen tëj ngeen di daw di dee ci géej gi loolu ngeen yéene seen bopp ma ne góorgóorlu leen ndaw yi Sénégal bàyyi leen xel bu baax a baax ñi liñ leen defloo yéen a ngi nat ñoom ñi ngi tekki yéen yéen a ngi torox kon li laa amoon lu may wax vidéo bu gàtt sant leen gërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu boo yaa ngi lox de